gën a fës ci seen actu du jour ami internet de 24 actu mu di situation bés bi di mbas mi ginnaaw ba mu duggee ci réew mi ak léegi ki nga xamante ne nii moo di Marie Khemesse Ngom Ndiaye génnoon na di ñu defal li nga xamante ne nii moo di résultat bés bi la mu ma ci ay cas daan ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo buñ paree daal ci toftal ki nga xamante ne nii moo di Omar Sarr ñu daal di koy testé mu daal di positif ci Covid 19 bi daan ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo wax ci cong yu métti ñi nemmeeku woon démb si talaata ji bëri ci Sénégal daal di wax ci li nga xamante ne nii moo di FRAPP France Dégage ci seen point de presse bi nga xamante ni ñu ko doon amal démb lañ fa génne rek ci ay cas ak la ko waral loon daan ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo wax ci li nga xamante ne ni tamit moo di déclaration bu xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bachir ginnaaw ba manifestation ba daal di jàllee rek moom daal di nay génn wax askan bi ngir ñu bàyyi li nga xamante ni moom lañ doon def démb daan ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo daal di ko jeexee ñàng meek ñàngale mii gis nañ ne démb élèves yi delluwaat delluwaatuñ ca école ba ba tax rek ki nga xamante ni moo di ministre bi ñu dénk njàng meeg njàngale mi génn na wax ay kàddu daal di jëmale ci ci loolu lis lépp ab tënk la nees tuuti ñu yaatal jërë ngeen jëf ami internet yu 24 actu ci taamu bi ngeen taamu xibaaru 24 actu comme ni ñu leen ko waxee léegi rek situation bés bii la mu xayma rek ci ay cas moo di ci te junni ak juróomi téeméer ak ngeen fukk ak juróom ci ay test yu ñu amal juróom-ñeent fukk yi ak juróom benn ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu juróom-ñett fukk yi di ay cas contact fukk yi ak juróom benn di ay kaa communautaire ci gox ya mu feeñ bokk na ci Dakar Plateau am na ci ñetti kaa Touba am si ñetti cas Liberté un am ci benn mbaaw am ci benn Rufisque am ci benn Kër masaar am ci benn Parcelles Assainies am ci benn Yëmbal am benn Ouest Foire am benn Sacré-Cœur 3 am benn Yoff am benn Amitié de am ci benn cas Sénégal liñ am ci ay cas grave mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñaar ñeneen ñi nga xamante ni hospitalisé nañ leen seen yaram mi ngi am tan buñ sukkandikoo rek ci Marie Khemesse Ngom Ndiaye nee na bi jàngoro ji duggee ci réewum Sénégal ak léegi. mi ngi toll si ñett junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay kaamum moom la ñu am positif ci réewum Sénégal ci biir loolu ñetti junni yi ak juróom-benn fukk yi ak ñett wér nañ ci ñeent fukki ak juróom génn àddina ñi ñuy saytu ci lali hôpital ñu ngi toll si junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ba tax rek ministre bi di njaari ñaax askan bi ñu gën a respecté loolee nga xamante ni moo di mesure barrière yi ngir jàngoro ji di law ci réew mi mën a daal di dakk ginnaaw bi Aliou Sall Diallo nekk maire bu Guédiawaye Moustapha Guirassy nekk ancien ministre amee woon jàngoro ji di coronavirus ñu daal ciy toftal rek nga xamante ne ni moo di Oumar moom la ñu daal di testé mu daal di positif positif ci Covid 19 bi buñ sukkandikoo ci libération online mi ngi ci centre bu traitement bu Fann depuis lundi waaye nag ay jege jegeñaaleem ñu ngi xamle ne état wam mi ngi am tan bu baax a baax suñ sukkandikoo ci ëtt yëglekaay boobu lee di Seneweb ginnaaw cong yu métti yi ñu nemmeeku woon démb ci talaata ji ca Touba Mbacké Tiwaawoon ak cees Tambacounda ak jurbel ginnaaw bi Cap Skirring jàllee askan wa génnoon ngir janook takk der yi ngir ñàkkum ndox ca diwaan boobule démb Touba ak Tiwaawoon transporteur dañoo mer ba futtu xëy janook takk der yi di taal ay pneu baare yoon yi ngir bëgguñu dakkal état d'urgence bi ngir ñu mën a delluwaat ci seen liggéey buñ sukkandikoo rek ci ëtt yëglekaay boobu lee di Sénégal set moo xamle yooyu les information ba tey ci coowu démb yi membre FRAPP France dégage ñoo lank ak aar ñu bokk ñoom tamit génnoon nañ di janoo ko taskatu xibaar yi ngir ñu dakkal état d'urgence bi wàññi yokkut ak courant bi ak ñu bàyyi Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci Karim Xurum Xaax waaye bi ñu noppee ci conférence boobule élément sécurité du centre des œuvres universitaires de Dakar di kudd ñoo daal di wax ñoo nangu taxaw sa kanamu siège bu FRAPP di menacer leader ñaari plateforme yooyu le di àll ñu bokk ak ñoo lànk bu sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di IGFM ki xam la yooyu le kàddu moo di euh, Guy mari Sagna muy li yees lu ñu nemmeeku si dëkk bu sell bii di Touba mu di manifestation bu métti te yàgg lool ba tax ñu gis déclaration bu xalif général des mourides de Serigne taxaa Bassir nee na na ko ñëpp bàyyi te delluwaat ci kër ya te xool ko ci ba baa ñuy xam lu waral lii di ay kàddu soññe waaye tamit di ay kàddu yu daw yaram loolu ñu daal di koy jeexaleek ministre bi ñuy dénk lépp di jëm ci njàng meek njàngale mi naam ne dakkal nañu ubbi waatuk école bi waroon a am démb ci talaata ji ba ñenn ñi commencé xalaat lii di année blanche waaye ministre boobule di Mamadou Talla nee na buñ ko mas a xalaat ndax mësul bokk ci seeni discours dinañ def baccalauréat ngir mën a jàll beneen classe supérieure waaye teewul ki nga xam ne moo di Dame Mbodj ci ab vidéo bi mu doon def ak waa Sénégal set di wax ne ministre de l'éducation dafa war a démissionner ndax cune bu métti moo am ci ni mu gérer crise bi ak enseignants yi ki xam la yooyu le cadre rek moo di Dame Mbodj moom rek ma ki nga xamante ni moo di Mamadou Talla mu démissionné ndaxte nee na cuune bu mag la du samay kàddu rek ki ko xam ne rek moo di Dame Mbodj ci vidéo bi mu doon def ak ak Sénégal 7 lii rek moo furi seni woon ci ay xibaar a dig daje ba ëllëg ak jàmm